yaa maalikal mulki yaa man jàll al xawaadir irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jàll al xawaadir irham jamii al waraa ahousubillah min asheytaan irajim bismillahi irahmaniirahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wajal kalaami rasidan wa murshida wa fikrati nawwir waxal bi arshida mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen eh, ziyaare di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke di ko ñaanal bu baax suñu borom guddal fanam te wéral ay cëram bu baax a baax niki noonu mbokk yi ku gis fi ñu taxaw xam ne ñoo ngi fii nag eh, ci gabon ni ngi jamono ji yëpp képp koo xamante ni yaa ngi ñuy bàyyi xel rek xam na ñoo ngi fi ngir lan ngir fas yéene wan leen lenn rek ci jeexital yi nga xamante ni e, sëriñ bi amoon na ko fi fii ci biir Gabon ci topp nga xamante ni mën nañ ña xama ngeen ñu ko mu doon topp wane lépp loo xamante ni sëriñ bi e, amal na ko moo xam liggéey wala fépp foo xamante ni fu mën a teg tànkam la suñ kémtalaay kattan ñuy jéem ci di leen ko indil saa su nekk macha allah fii ñu taxaw nag ngeen gis noonu jumaa ji nga xamante ni moo ñu féete ginnaaw ku fi mës a ñëw rek sa xel dina dem ci bërëb bi nga xamante ni moom lañ moom moo nekk suñ ginnaaw muy ban bërëb muy euh, mosquée centrale muy mosquée sainte bi nga xamante ni mi ngi fii ci biir Gabon mosquée bi nag am taarix lu yaato yaatoo yaat xam naa ne fan yi ku ñu topp ci suñuy élément rek diñ ci xam dara waaye lenn rek ci fàttali bërëb bi nga xamante ni moo ñu féete ginnaaw fi la Serigne Touba nekkoon fi la ko tubaab bi wàcce woon ginnaaw bi nga xamante ni ci lañ ko wàcce ci Gabon ginnaaw bi lañ ko indiwaat fii mën nañ ne bëri na loo xamante ne ci taarix mën nañ ne eh, ñi ngi koy dégg ci sëriñ bi nekk nam fii ci Gabon fii la ko amee woon lu ci mel ni eh, maanaam fii nga xamante ni fi la ko tubaab bi maanaam yee woon di ko dóor li nga xamante ni mooy bari fetali ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni bërëb bii nga xamante ni tey jii moo nekk suñu ginnaaw fi la ko tubaab bi doon defee waaye nag tey jii ku fi teew sa xol sedd lool ci taxawaay bi nga xamante ni bokk yi amal nañ ko fi mu doon jumaa joo xamante ne tey jii def nañ ko fi mu doon jumaa joo xamante ne tey jii ku fi teew rek sa xol dina sedd ci jumaa joo xamante ni amut euh, amut tijaan amut murit amul xaadar amut layen ñëpp ñoom ñoo ko bokk saa su nekk waaye rawatina waxtu yi nga xamante ni fi lañ taxaw tem muy waxtu waa juma nga xamante ne bokk yi dinañ bàyyi ko fenn fu nekk di ñëw di jullisee fii nga xamante ni mooy ci biir jumaa ji loolee nag mbokk li mbokk yi mu doon loo xamante ni ab jàngat la ci képp koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel xam ne Serigne Touba lépp loo xamante ni da ko doon def li muy faral di wax rek ne dafa ñëw taxaw taxawaay boo xamante ne dafa fas yéene yeesal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii doy na ci firnde bu baax a baax a baax a baax ci biir lool it euh, ñu ànd ak Serigne Khadim Seck mi nga xamante ni depuis boobu ba léegi ñu ngi ànd jóge fële ci Sénégal ak Serigne Abdou Aziz Diop mi nga xamante ni moo féetee foofu ci caméra bi naka noonu rek comme ñu ko waxee su suñu njëlbeenu kàddu dara ñoruñu dara yitteeluñu lu dul xencu liggéeyub Serigne Touba Cheikhouna Ahmadoul Khadim xam naa dañuy jox Serigne Khadim rek kàddu gi bu ko defee mu def moom it ay ay jàngat yoo xamante ni amal na ko ci bërëb bii nga xamante ni tey jii fi lañ fas yéenee jullee li nga xamante ni mooy àjjuma aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi nga xamante ne yéen a ñuy topp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaaraat di leen balwaat àqate di leen ko baal di ñaan suñu borom boole ñu jégal di jiital ci nuyoo yooyu ak ziyaar yi Cheikh Mountakha moom sëñ Bassirou di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba li mu naal di ko liggéeyal maamam ju tedd ji mu eggale ko ci jàmm te ñu ànd kook moom ak mboolem jullit di eh, jiital am yooyu it ci ñi nga xamante ne ànd na ñoom ñu ay jàmbaar yi fàkk tëdd ci liggéey bi nga xamante ne ràññee nañ ñu ci muy moo Modou fay mii nga xamante ne eh, fépp foo xamante ne taxaw nañ fa rek gis ngeen liggéey bu am solo bi nga xamante ne mi ngi koy amal. ñu ànd ko Serigne Abdou Aziz Guy Mbind ca nekk ñu ñaari organe benn lañu eh, li ñuy faral di wax rek muy tool bi eh, dafa yaatu kenn ku ne dal ci ab baar waaye eh, liggéey bi benn la su ko defee comme sëñ Modou daanaka lu ci bari wax nga ko eh, fi ñuy taxaw def taxaw seetlu rek muy li nga xamante ne noonu nga ko waxee wa andal masaajida lillaahi falaa tad'uu ma'a allah muy jumaa jumaa suñu boroom la ci it njàngalem Sëriñ Tuubaa lislaam la doon wootewul woon lenn lu dul lislaam lislaam a ko taxoon a jug moo ko taxoon di xeex moo ko jotale woon ak tubaab bi moom moo ko indi fii kon ni ko borom xam-xam ñi di waxee duñ jël si ci historique bi parce que ci biir incha allah bu ñu yeggee ñoom imam Fall ak ñeneen ñi fi nekkal di def liggéey bu am solo ñoom dinañ jël si waat ci historique bu barab bi ci xew-xew yi nga xamante ne jot na fee am muy xew-xew yu kéemaane ci diggante tubaab bi ak Serigne Touba waaye eh, taxaw seetlu bi ñuy def muy. Eh, xeex bi nga xamante ne Serigne Touba doon na ko xeex eh, chaque jour day am firnde yi ne gañe na ko gañe gu wér ndax li ko yitteeloon moom moo doon eh, yee nit ñi yar leen ci lislaam ñu xam seen borom te di ko weetal te loolu yaakaar naa ne ku fekk mbooloom taalibe yi fu ñu mën a nekk ci àddina di nga xam ne loolu ñu ngi koy dundal bu baax a baax ndax alal mooy li nga xamante ne moom lañu mën a nattee nit alal ak ak temps ci nit ñi jël nañ seen alal jël seen temps rek alal ak temps mooy nit mooy doomu aadama ca foo dem da ngay fekk ne doomu aadama yi taalibe yi jullit ñi ñëpp euh, dañuy jël seen temps ak seen alal yëpp euh, jox ko euh, li nga xamante ne mooy lislaam comme niñ ko waxee rek mooy nit ñi jël nañ seen alal jël seen temps jox ko diine lislaam jox ko Serigne Touba ba bu ñu nee jox nañ ko Serigne Touba mooy jox nañ ko yàlla jox nañ ko lislaam ndax jumaa ju toll nii ku ko gis ñu ne ay milliards lañ ci def ci tàmbalee ko ci njënd ma taxawal ko ba mu toll nii mu toll ñu yamuñu taxawal ko waaye gis nga leen fenn fu ne ñu ngi fay jugee ci biir dëkk bi di ñëw di fi julli si kon taxawal nañ ko waaye ñu ngi koy dundal te loolu rek moo doon yittey sëñ Touba te loolu it ñu ci mën a fàtte taxawaayu euh, mujahidul akbar muy sëriñ euh, Mouhamadou Murtada nga xamante ne liggéey bi bu amee nii mën nañu ne euh, li ca ëpp ci loxoom la amee te moom ñu xamoon ko ci jàng ak jàngale ak yar fépp fu mu dem lu mel nii la fay taxawal ay këru lislaam ay euh, ay daara al azhar ni mu ko dajalee ci Sénégal ba mu mat noonu la tàmbalee génn def ko ci Côte d'Ivoire def ko Mali def ko def ko Gabon fii def ko ba ci Europe def ko Amérique kon kooku it mën ne su ko fàttee ci liggéeyu sëñ Tuubaa yaatu bi kon xam naa daal euh, sëñ Modou ci gàttal xam ñun moom mëneewuñoo wax lu bari dañ lay delloo kàddu gi rek xanaa di gërëm ak a sant ak a ñaan ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy baaxoo di ñu topp ñu leen di tàllalaat suñu loxo di leen wax ñu ngi sàkku ci ñoom ñaan ñu gën ñoo dooleel gën ñoo jàppale ci topp gi ak ci ci jàppale gi ndax loolu ñun suñu yittee comme ni nga ko waxee ci tàmbali gi dara ñoruñu eh, wutuwuñu dara lu dul ni ko suñu slogan waxee eh, la télé qui suit l'enseignement de Khadim Rassoul kon fépp foo xamante ne ci àddina bi fu njàngaleem sëñ Touba nekk darañ fa dem vulgariser ko ndax dafa am loo xamante ne mooy suñu sas mu yaatal googu ak feeñal gi ndax ah, communication dafa am solo ci lépp lu mën a doon. comme ni ma koy faral di waxee. alxuraan li muy màgg-màgg li muy ris ris li muy sacré sacré communication la ndax ay fee la ci suñu borom di. relaate ay yu jàll ak yu yu ñu tollool ak yu ñu jëm ëllëg kon loolu suñu borom day communiquer ak ñun kon ku de ku gannaawal communication rek dese nga xam lan la communication di jariñ kon daal ñun ñu ngi ci loolu di tàlla daal loxo ñëpp di wàccee foofu suñu kàddu di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf euh, Serigne Khadim Seck ci kàddu yu matala yooyu waaye comme fi mu daanee rek du ñu def lu mooy fas yéene dugg ci biir rek fas yéene leen indil jullit gi nga xamante ni it moom la fi bokk taalibe yi di amal waaye du ñu wax sax mbokk taalibe yi jullit yi nga xamante ni saa su nekk bu àjjuma jotee rek dinañ ñëw ci jumaa ji nga xamante ni waxuma teew fi julli waaye teew fi rek teg fi sa tànk rek mën na ne tiyaaba la mën na lu ci baree baree baree baree ay jeexital lay def ci sa jëmm kon du ñu ànd lu mooy fas yéene dugg ci biir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 si jamais le croissant apparaît le jeudi soir, le vendredi prochain sera le premier jour, on doit tout faire l'effort pour jeûner tous ces jours-là. Ensuite, on va faire les zikroulas pendant les jours de Ayamumina, cest les trois jours qui vont suivre le jour du sacrifice. Celui qui a les moyens doit égorger une bête, un bon mouton bien choisi qui va respecter les conditions de vraiment, il faut voir la grandeur d'Allah. On doit pas voir le prix avec lequel on va le payer, mais on va voir ce qu'on donne à Allah. Et là, il dit que ni le sang, ni les poils, ni la veine ne va, ne va pas atteindre Allah, mais quest va l'atteindre C'est la, crainte d'Allah, subhanahu piété. Et pour terminer, dans deux versets de Masal Kuljinan, Khayr Masal nous dit وَرَقَبُوا فِي سَرْدِ شَهْرِ رَجَبٍ وَمَسُلُّهُ مُحَرَّمٌ وَضَرْقُ بِهِ di wa tis'un zil hijjati aydan wa kaza demi e shahbana uh, faraqil maqaza la qu'est-ce qui nous intéresse wa tis'u zil hijja wa tis'u zil hijjati aydan wa kaza ce sont les premiers jours du mois de zil hijja qui vont venir il est recommandé de jeûner ces jours là incha allahu taala le jour de Arafat si tu ne les neuf tu fais au le jour de Arafat un seul jour tu vas jeûner à la les péchés de deux ans un seul jour yawma Arafat car nous pardonne nos péchés, car nous sur le droit chemin. Maintenant, à titre rappel, on a perdu un, oncle, un grand-père pour certains, un oncle, un papa de la grande famille musulmane, tout le monde connaissait Libreville. Et l'âge de Bessongom nous a quittés. On demande à ce que tout, chacun d'entre nous passe le doigt pour lui, qu'Allah soit l'acquête d'entre Firdaus, car lui pardonne les péchés. On a également notre frère également qui a la belle-mère, un enfant qui vient de perdre sa belle-mère, tout ça là, ça nous rappelle que nous tous ne sommes que passants. Bientôt, Inch'Allah, c'est à notre tour. On dit Inna dillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah c'est avec lui que nous allons euh, nous serons ramenés. Donc il y a notre frère qui a perdu sa belle-mère, il y a notre doyen Alaï de Bosngom qui était là, que tout le monde connaissait, qui nous a quittés. Dimanche prochain matin, on va faire le doigt à la euh, derrière Batavia, Touba Gabon, à Batavia, pour Inch'Allah Ta'ala qu'elle pardonne ses éventuelles fautes et qu'elle la dans le Firdaus. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة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 kama baaraka ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid wa axiru daawana ani alhamdulillahi rabbil alamin ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah alhamdulilahi rabbil alamin fataha li ibadihi mawasimal xayri wa nawaaha li yetazawadu minha saalia al ahmal wa yastadriku ma yaxsulu min al gafla wal ihmal wa ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu alkabir almutaal wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi xayra saxbin wa alin wa sallim tasliman kasira amma baadu fa yaa ibadallah uusikum wa nafsi awalan bi taqwallahi taala wa taatihi ittaqu llaha taala wa aalamu annakum fi hashi dunya fi daari mamar wa ma ziltum fi safar wa anna ila rabbikum almustaqara wa annaha tamuru bikum mawasimun azima tudaaf biha alxasanaat wa tukaffir fiha asayiaat wa min xasi almawaasim ya ibaadallah shahru silxija faqad jamaca allahu fihi min alfadail wa nawaa fihi min altaaat ma la yaxfa illa ala ahli algafla wal iraada fa fi awal asr mubaraka allati nawaha allahu biha fi kitaabihi alkarima xaysu xaara subhanahu wa taala wal fajr wal fajr wa layaalin ashr fa inna almuraad biha asru silxijja qad aqsama allahu biha taaziman li sha'niha wa tanbihan ala fadliha wa rawa albuxaari min xadis ibn abbas رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العام الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله illa rajulan xaraja bi nafsihi wa maalihi summa lam yarji min zalika bi shay fa dalla hada alxadis ya ibadallah ala anna alamal في هذه الأيام العصر أحب من العمل في أيام الدنيا من خير استثناء وأنه أفضل أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا جهادا واحدا wa huwa jihaadun man xaraja bi nafsihi wa maalihi fa lam yarji bi cheyin fa haasa al jihaad bi xusuusihi yafdul ala al amar fi haasi al asr wa amma baqiyatu anwaahi al jihaad fa inna al amal fi haasi al asr afdal wa ahab illa allah minha wa qad sharaca subhanahu wa taala aw li ibaadihi siyaama haasi al ayaama maa ada al yawm al aashir wa huwa يوم نحر ومما يشرع في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله مثل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله والصلاة على النبي ولا سيما التكبير كما قال ويذكر اسم الله في أيام معدودات أو معلومات وهي أيام العصر عند جمهور العلماء wa amma ayaamu almaadudat fa hiya ayaamu tashriq ayaamu tashriq fa yustahabu al iksaar inda allahi fi haasi al-asr al-mubaarak min at-tahlil wa takbir wa tahmid min at-tahlil wa takbir wa tahmid wa an yajhara bi dhalika fi al-aswaaq faqad zakara al-Buxaari fi saxiixihi an ibni Umar wa abi Hurayrata رضي الله عنهما أنه أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وهذا من رحمة الله بعباده فإنه لما كان ليس كل واحد يقدر على الحج جعل موسم العشر مشتركا بين الحجاج وغيرهم fa man lam yaqdir ala alxaj fa innahu yaqdiru ala an yamala fi l ashr amalan يحصل على الجهاد وفي عصر العصر المبارك يوم عرفة الذي هو أفضل الأيام روى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام أفضل الأيام يوم عرفة أفضل الأيام يوم عرفة wa warada anna sawmuhu yukaffiru llahu bihi as-sanna al-maadiya wal-baaqiya wal-muraadu bi zaalika takfiiru saqaa'iri dunuuba saqaa'iri dunuuba faqad rawaa abu qataada radiyallahu anhu qaala su'ila rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawmi arafa fa qaala yukaffiru as-sanna al-maadiya wal-baaqiya rawaa muslim wa fi lafzi qaala sallallahu alayhi wa sallam siyaamu yawmi arafa inni axtasibu ala allahi an yukaffira asanna allati baada wa sanna allati qablaha fa yustahabu siyaamuhu li xayri alxaaja ama alxaaj fala yanbaqi an yasuumuhu li ajli an yataqawa ala alwuquuf wa zakara allahu taala wa huwa yowmu maxrifatu dunuba wal isqu min annaar wal mubaaha bi ahlil mawqif kama fi saxiix muslim an Aïcha radiyallahu anha anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala maa min yawmin akthara min an ya'tiq allah fi abida min annaar min yawmi arafa wa innahu la yatnu suma yubaahi bihi almalaika wa rawa ibnu xaban fi saxiixihi aydan min xadis jaabir an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينصر الله إلى سماء الدنيا فيواحي بأهل الأرض أهل السماوات أو أهل السماء فيقول انظروا انظروا إلا عبادي انظروا إلا عبادي سعطا غبرا حاجين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير أكثر عميق أو عتيق من النار من يوم عرفة wa fi asi shahrul mubarak ya ibadallah yowmu nahr allazi huwa yowmu alxajj al akbar yukammilu almuslimin xajjahum allazi huwa alruknu alxaamis min arkaan alislam baadama waqafu bi arafa wa adaw aruk alaf min arkaan alxajj wa xasalu xasalu ala alatf min naar man xajja wa man lam yaxuj min al muslimin fa saara al yowm allasi yali yowma arafa iidan li ahli l islam jamian li istiraakihim fi l atqi min an naar wa sharaa lahum fi fihi sabu lqurabayn yani min hadi wa adaha walxujaj yastakmiluuna munasika xajahum fi hada al yowm al mubarak min ram walxalq aw taqsira wa tawaaf bil bayti wa bayyana as-safa wal marwa wa ahlul amsa fi xaasil am al yawm yuadduuna salaatul iid li iqaamati zikrillah wa fi asi sahr ya ibadallah al mubarak ayaamu tasrif allati hiya ayaamu mina rawa muslim fi saxiixihi min xadisi nabi si al xudliya an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala ayaamu mina ayaamu aklin wa shurbin wa zikrullah azza wa jalla wa hiya الأيام المعدودات التي قال الله تعالى فيها واذكروا الله في أيام معدودات وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر وقد أمر الله بذكره في هذه الأيام المعدودات وذكر الله في هذه الأيام أنواع متعددة منها ذكر الله عز وجل عقيب الصلوات المكتوبات بالتكبير المقيد في أدبارها ومنها ذكره بالتسمية والتكبير عن صدح النسب ومنها ذكر الله أيضا عز وجل على الأكل والشرب الأكل والشرب فأيام تصير أيام أكل وشرب وذكر الله فإنه يسمى أو يسمي الله عند بداية أكله وشربه وبحمده عند نهايتها وبالجملة فشهر ذي الحجة قد تنوعت فيه الفضائل والخيرات التي أعظمها ibqa xaj fii ila baytillahi alxaram wa huwa min al ashhar alxaram xarama allahu alqitaala fiihi li waquci alxaj fiihi isan faskuru llaha ayuha almuslimun ala nicmatin azima waqtanimu xayratu hasa shahr wala takunu min alxaafilina yarhamu llah lakum wa lisaa'il muslimin ya rabbal alamin alhamdulilah alhamdulilahi yaxluq ma yashaa wa yaxtaar wa ashhadu an laa ilaha illa allah alwaxidu alqahaar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu almustafa almuxtaar sallallahu alayhi wa ala alihi wa asxaabihi albarara illa tahara almuhaajirina min wal ansaar wa sallim tasliman kasira amma baadu ayuha nnaas ittaqullaha ittaqullaha ya ibadallah waalamu annahu yaxrumu siyaamu ayaamu tashrin aw tashriix ala sallallahu alayhi wa sallam kama qaala ayaamu mina ayaamu akl wash an aisha radiyallahu anha wa ibnu umar radiyallahu anhuma qaala lam yuraqas fi ayaamu tasdiq an yasumna illa liman lam yajid al had rawahu albuxaari wa fi nahyi an siyaami hada al ayaam wal amru bil aqli والشرب فيها حكم يعني باللغة وذلك أن الله تعالى لما علم ما يلاقي الحجاج من مشاق السفر وتعب الإحرام وجحاد النفوس على قضاء المناسك شرع لهم شرع لهم الاستراحة عقب ذلك بالإقامة bi mina yowma naxri wa salasa ayaam baaduhu wa amrahum bil akli fiha min luhumin sukhim fihim fi diyaafati llahi azza wa jalla wa yusaarikuhum ahlul amsaar xayrul xujjaaj fi zalika li annahum shaarikuuhu fi lamal fi siyaama asrasi lxujja wa fi sikk wal ijtihaad wa fi l ibaada wa shaarikuhum في التقرب يا عباد الله إلى الله بسبيل الله فاسترك الجمع البعيد والأكل والشرب والراحة فصار المسلمين كلهم ضيافة ضيافة الله عز وجل يا عباد الله يغفر لنا لكم لسائر المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله اللهم ألف بين قلوبنا waslix saata baynana wahdina subula salaam wa najjina min azulumaati ila nuur wa jannina alfawaxisa ma dahara minha wa ma batana wa barik fi asmaacina wa absaarina wa xuluubina wa azwaajina wa zuriyaatina wa tub alayna innaka anta tawaabu rahima waj'alna shaakiri nicmatika allahuma inni asaluka sabata fi l amr wa asaluka shukra nicmatika wa xusna ibadatika wa asaluka yaa rabbi lisaanan saadiqan wa xalban saliman allahuma axsim lana min xashyatika maa taxulu bihi baynana wa bayna maasika wa min taatika maa tubalaxna bihi jannataka min yaqin maa tuxawin bi alayna masaiba dunya wa matiana bi asmaina wa absarina wa quwatina waj'al warisa minna waj'al tharana ala man zalamna wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al akbar hammina wala mablaga ilmina ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم سدنا ولا تنقصنا اللهم سدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثر ولا تؤثر علينا وارض عنا يا ذا الجلال والإكرام ربي bima yashrahu al azhana qad fajaha bi jaay afdali man lay xat la jaha hamdi li rabbil karim la sharika lahu wa sadinun satan madaha muhammadu salawatullahi fi abdin ali fi bi kulli bihi kalaha ad'u ila lisma ma bo ni jëm taxal ma yaqan bada najatuhu jalla awaman wa karmi takrimi hadu kulli man lahal rahman habli jami'an khalqi rahmatan man yukhuni an sharri man qur'anu hara hukmat al mustafa an kulli mafsadatin wal tarhamil khalq ya man jaddah ya malikal mulki yaa malikal mulki yaa malikal mulki yaa man jallaan xaw ni irham irham jamii al wara yaa haadi radaha ma xawta ma xatna al xalb min dararin bi jaay afdali man lilaahi xat lajaha allahuma salli ala sayyidina muhammad al fatih lima ughliq wal xaatim lima sabaq nasir al xaq bil xaq wal haadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdar azim inna allaha wa malaykatahu yusalluuna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin من جل أن خاد ارحم جميع الورى